ci la askanu Sénégal waroon a wate ñu tànn ci président de la république bi nga xamante ni moom moo war a remplacer président Macky Sall conseil constitutionnel alxamis bii mu àddu ci jël ay responsabilité wax ni décret président de la république boobu méngoowul ak constitution bi mu wax ni président de la république mënta yokk mandaam waaye mu wax ni aussi président de la république mandaam mi ngi jeex le 2 avril assemblée nationale dafa violer constitution bi assemblée nationale amul dayo boobu président de la république Macky Sall aussi mënul lool naam sax amul possibilité baneen lu dul moom mu respecté décision boobu mais mu wax ci ay service am de manière officielle ni décision boobu dina sàmmoonte ak moom dina organiser ay élection dans les meilleurs délais daal di biralaat ni moom aussi du nekk candidat ci ci ci élection yooyu waaye mu des jafe-jafe yu bari ndax kañ la ñuy def élection yooyu loolu tey jii mooy question bi nga xamante ni moom la sénégalais bu ne di laaj moom la sénégalais bu ne aussi bëgg laaj président de la république nan la ñuy demee ci élection yooyu ba ñu mën a sauvegarder suñu démocratie sauvegarder suñuy institution mais aussi ñu respecter suñu constitution waaye ñu dem ci élection yi noo xamante ni ki nga xamante ni moo jiiteen di réew mi muy président Macky Sall ci boppam naam def na lu baree bari ci réew mi loo xamante ni ah teguwul ci démocratie mi ngi tegu woon rek ci bakkanam mi ngi tegu woon rek ci jaay doole waaye transition boobu aussi war nañ ko gérer noo xamante ni ah ki nga xamante ni moo nekk ni président de la am na statut ndax institution bi gën a mag ci réew mi mooy institution président de la république ndax président de la république institution la moom moo jiite institution boobu kon war nañ ko may porte de sorti bu honorable boo xamante ni duñu ko toroxal ndax suñu ko toroxalee suñuy institution la ñu toroxal suñu ko toroxalee suñu réew la ñu toroxal suñu bopp la ñuy gàkkal ndax aussi lu manti xew moom jiite na Sénégal lu mat fukki at ak ñaar te boobu ba léegi aussi moom moo jiite Sénégal loolu nag xel rek moo ñu ko mën a may du du xol du pët-pët du fitna déedéet ca loolu kon mënta am lu dul ci biir waxtaan waxtaan wu yaatu woo xamante ni moom war na ko mën a séq ak candidature yi nga xamante ni moom la conseil constitutionnel validé mais war na ko mën a séq ak tous les acteurs de la vie politique et tous les acteurs aussi de la société civile ndax xel moom xalaat rek lay jariñ yaakaar naa ne bu yéene yi rafetee war nañu mën a génn ci situation bi ñu tànn date boo xamante ni dina dina nekk date boo xamante ni dinañu mën a permettre ñu dem ci élection yooyu muy premier tour muy deuxième tour mu nekk élection yoo xamante ni sénégalais yi ci boppam dinañu dinañu mën a tànn seen président de la république. donc ñun FDS Les Guelwaar jaloog boobu moom lañ ni ñun d'accord nañ ci moom dinañ ko taxaw dinañ ko suuxat ndax jaloog boobu rek moo mën a indiwaat dal moo mën a indiwaat jàmm moo mën a indiwaat institution yi ñu tabaxaat ko ba Sénégal dellu nekkaat. démocratie bi nga xamante ni moom la moom la nekkoon démocratie bi nga xamante ni moom la ñu àdduna yépp moom la àdduna yépp daal di daal di nawe ñu wax président de la république na xootal waxtaan yi waaye ginnaaw bu mu xootalee waxtaan woowu la ca jiitu mooy tous les prisonniers politiques ñi nga xamante ni dañ leen a jaay doole toroxal leen génn leen seen i seen i biiri njaboot ñi nga xamante ni dañoo tas seeni i parti tas seen i kuréelu politique ca la ci ëpp lu dul jaay doole ñooñu aussi nañu leen bàyyi ñoom ñëpp ñu ñibbi seeni kër ndax li màndargaal ni jaay doole la di màndargaal ni réew mi taxawul ci ci justice mooy jàpp ay junni junni junni junni doomu aadama nga tëj leen ci kaso yi tëj leen ci ay prison yi xëy xëy di leen libéré ni mu la neexe di leen libéré ni mu la neexe kon yow ci sa bëgg-bëgg la dépendre nga jël ay nit tëj leen ci kaso ci sa bëgg-bëgg aussi lay dépendre nga libeere leen comme ni mu la neexee ci boppam loolu aussi war wane na rëq-rëq bu rëy rëy ci suñu démocratie wane na rëq-rëq bu rëy rëy ci suñu justice ba yaakaar naa ni ak ku mu mënti doon nga xam ni moo fi wutu président Macky Sall war na gën a dëgëral justice ba nga xamante ni lu mel noonu donc du amat mais que ñu koy ñaan di ko encourager loolu nga xamante ni tàmbali na ko di libérer les prisonniers politiques les otages politiques ñooñu ñëpp mu libérer leen ñu may leen ñu ñibbi waaye aussi ku mel ni Sonko mu man ko bàyyi aussi mu dellu ci këram dellu ci ay yitteem dellu ci ay activité politique am waaye la ku mel ni Jomaay Fay aussi mu mën ko libéré man ko bàyyi mu dellu ci njabootam man ko bàyyi mu dellu ci activité am man ko bàyyi mu mën a dem battre campagne loolu mooy li nga xamante ni aussi bëggoon nañ ko leeral bu baax a baax SeneInfo International